alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarhum ila yawmi ddin bokk jëli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha alayhi wa sallam tey jaajëfal Acheikhul Xadim leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nuy door a tàbbi di chehru Chaaban al mukarram weeru màgg wu tedd wu bari ngëneel Eh, ni ci ndokkeel ñépp ñaan sun ba mu nu màng mboolem li weer làmboo ci ay xéewal ak i barakaat ak i ngëneel yëpp ñu mbokk ko ci mànge ñaan Seex Muhammadu ni Muntaxa mi fi nekk Sëriñ baa mu yàgg fi lool te wér àggale mboolem ay naalam ak i yéeneem waxtaan wi nuy bëgg des rek ci ma ji nga xam ne dëkk bi làmboo na ko tañ war a sàmmoonteeg moom dëgg dëggi càmm dëgg dëggi càmm day mel ni li nu boole sëriñ nu yaakaar ko gëm ko jox ko suñ lépp gàddaay bàyyi ay suufi maam fekk si ko day mel ni ngëm googee wala yaakaar yu du du dëgg lu may dañoo tënku ca lam nu tànnal fam ñu rëddal ñu yam fa Tuubaa de dëkk boo xam ne melu ni dëkk yi ci des ni daana sanc ngir daba ay suufi maam ni daana sanc ngir wut fu neex a bay wala wut fu féex waaye barab bu ñu sañ ngir jaamu yàlla dong dong dong dong liggéeyal yonent saa salaam dong dong dong ci dëkk Sëñ Tuubaa rek nga ko fekk mooy dëkk yam sanc mbaa mu sanc lu ko nga loolu rek ma xam ne yàlla kese moo ko lal waaye sàkku fa leneen Tuubaa gi bokk ci yooyu nga xam ne mooy ñaareelu dëkk bu mu sanc gannaaw Daaru Salaam tàlla ko fi indi wax na ko ba mu bàyyi ko Daaru Salaam naqaltani min watani daari salaam faruddani laha muafan ya salaam naqaltani min haaj li ajli tarbiya yaa xayr rabbi wala ajli tarqiya yow su yaa ma toxal daa salaam inna ma yàlla na ma fa delluwaat ci jàmm waaye toxal ga ma fa toxal inna ma tuuba nag dara ko lu may ngir tarbiya ngir ngir tàggatal ma sama bakkan ak man maay yéege fa yàlla subhanahu wa daal di wax ne yar ba sax mat na wa kamulat tarbiyati faraqini waruddani laha wa kaydaka xini abdan xadiman maakisan fii tuuba wu ko fa an yebbi xal ko tuuba kon wane na ni kon li ko taxoon a sanc tuuba mooy dafa barab boo xam ne dafay mën a dafay nekk barab bu mel ni Makka ak Medina nekk barab bu ñuy bu ñuy jaamoo yàlla barab bu ñuy siyaar di ko barke di fa barkeelu barab boo xam mën a jaamu yàlla mën a mucc fitna seytaan ak gàllankoor yëpp man fa tërbiye taalibe defar seen jikko ba ñu rëcc seytaane rëcc mboolem gàllankoor yëpp lool mooy sabab si taxoon mu sañ ci Tuuba loolu nag kon war tax ñu di ko bàyyi xel kon day mel boo xoolee ci ay ñaanam yëpp it lam fa bëggoon loolu la fi ñaan lam ñaanoon mooy mu nekk dëkkub jàmm ak wëlën nekk dëkkub xam-xam nekk dëkkub topp sunna nekk dëkkub njub wañal binaa iya binaa a aafiya yajurruni ila xuyurin soofiya maa ngi lay ñaan nga def sama dëkk bi Tuuba mu nekk dëkkub jàmm jàmm joo xam ne dafay ñoddee jëme ci ngën ji yiw yu sell yi wañal binaa iya binaa a ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi ñaan naal nekk dëkkub xam-xam dëkk bu ñuy sàkkoo xam-xam di fa dund xamu di ko fa dundal waaye di fa jëfe sunna di ko dundal itam di fa suuxat sunna mooy xam-xam ba xam ne xam-xam bu tegee ci sunna ñu dafa dund sunna sori bi daa yegg ya dem ni ñoom wajal binaa binaay binaa al ihtidaa wala te fi ànd kay di kulli i'tidaa yàlla naa mu nekk mu nekk Tuubaa nekk dëkkum njub da fegal ma fi ay képp ku borom jalgati ñu gis nag euh, jamono yi réew yëngatu na te yëngu yëpp nag mën naa yëngoo fépp ba mu des Touba te sëriñ bi nag santaane ko yoon yoon yoon dégg ngeen ci kàddu boobu mu ne lim fi gën a bañ mooy politique te gis nañ ne ba tey nam war a sell dëgg dëgg dëgg ci niñ ko war a wormaal ci politique ba tey des na manifestation mën naa xewi fene feneen ba mu des Touba ak yee ca des yëpp yee des yëpp kon loolu ñu ko bàyyi xel ba xam ne kon la taxoon sañ bi borom borom sanc ko loolu rek lañ la moom rek moo fi war di moo lañu fa war di dégg lañ fa itam war gis saa su nekk te euh, ñaanu sëriñ bi lépp lum ñaan ala kulli xaal faaw loola day am na muy amee nag ak yoon nga koy yàlla jaarle sun boom ci bopp moo ko xam moom moo ko séq moom moo ko séqal waaye daal ñaan na suñu boom fegal ko fi ayu seytaane ak kuréelam ba képp ko jalgat nag ci kuréel bi seytaan da bokk moo xam nit la moo xam jinne la waaye ñaan na yi boom mu fegal ko fi jépp jëmm joo xam ne jëm yàlla taxu ko jóg loolu lu mat bàyyi xel la wal tak fi an nii kulla saxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian is yàlla na fegal ci sama dëkk bi jépp jëmm joo ne yow yàlla taxoo ko jóg na sa jëmm ji su fi nee su fi su fi accès daal di may dàqal mu génn ci saasa fasrifu sari'an daal di koy wëlbati ci saasa waxtu wóoroote rek isérit rek daal di ma koy génneel ci saasa bokk na ci lii lii nag amuk dal de maye gudd fan mooy nekk tuuba ak njub boroom da ko sanc ngir ak njub doon fi jubbantee ñaan fi ak njub saxal fi ak njub ku fi nekk leneen da nga fi dul yàgg fasrifu sari an jooju mën ci dégg ñaar ñaari déggin mën naa doon génn dëkk bi dem feneen waaye mën naa dem génn dem ba dem baqi ku fi nekk Tuubaa nekk nekk boo fi ak njub te dëkk fi fas yéene dëkk soo génn dëkk biir moom doo fi guddee aw fan doo fi guddee aw fan loolu lu mat a bàyyi xel la ndax ci biir ñaanam lépp da nga cee seetlu lu mel noonu waaye da ko ñaan yete mu nekk dëkk bu barkeel dëkkub ragal yàlla dëkkub xam-xam dëkkub diine adoo ko an tajaluhu daara tuqaa wal ilmu wa diin wa daara al irtiqaa waaye nag ñaari bayit yema ca sësale ndax bayit yi indee moo ko ni mu sësaloo li ma junjoon léegi da ci feeñ wa man fa wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan an haatikin maridi dama ñaan dëkku Tuubaa nekk dëkk boo xam ne dafay nekk njariñ ci képp kuy ab jullit tey tey ko jub maanaam bépp jullit bu jub na Tuubaa nekk njariñ ci moom waaye ki ki nga xam ne dafay dafay dafay jalgati wala muy xotti woon mi diine na Tuubaa mel ne ab bomb ci moom bu koy dégaasi ci ci àll ba wa junat an haatikin maridi koo xam ne dafay xotti war may diine te fetteglu notubaa mel ne ab bomb ci moom ndekk ab pakk bu koy génne ci biti wa man faan li kulli haadin kulli aadin mujrimi natubaa nekk njariñ bu njëkk dafa nag aljanna aljanna ci képp kuy ab murit bu soobu ci yoon wi te nekk ab pakk ci képp kuy xottiwar mi diine te tey tey jalgati bii nag mu ne na nekk njariñ ci képp kuy julit eh, képp kuy julit bu jub waaye nekk madd faax nag ci képp kuy jalgati te dib kon na xam ne kon loolu lépp lu mat a bay xel la lépp lu mat a ñaan ñaan na ko fi ci lépp luy gàllankoore def naa di wa bayaan bi mujj def loolu ci loolu doon waxtaan mooy lim lim lim ñaan ci Tuubaa ci kaaraange ci li suñu mu Muntaxaa waxoon ne mooy tata ji gën a dëgër ji mën a gën mën a aar nit nga lay aar yow mi ko yi ko jàng xasida gi di aaraal li la wër bu ñu xoolee jàngat ñaan yam fi ñaan ci lépp luy aar da ngay gis la ci noonu la ñaan itam lépp loo xam ne luy gannaaw bu ñaan luy luy fekk ba noppi dafa ñaan rek lépp luy njariñ loob ji man a jariñoo ba mën a dund diinam te dartu ko する mel nag tere yi sëñ bi tere woon am na ci yoo xam ne yu dagan la am yoo xam ne yu xaraam la yaa xaraam nag moom kii dëkk Tuubaa ki dëkk feneen a ci am boo xasee doon ab murit sëñ bi tere ne lii fa nga nekk donte lu jiit sëñ bi sax yàlla ko njëkkatee yun saa suñ tere ko mu ñëw gën ko firndeel ab murit fu mën a nekk na jàppe foofa Tuubaa ba lépp lu jekkul Tuubaa bu mu ko def foofa ak lu mu sori sori Tuubaa fa ab murit nekk it fu mën de doon na ba day jàpp fam nekk ak Tuuba ni waa Tuuba ki nekk Tuuba dafay wërteef ci moom mu war warmaal xaram ji te warmaalit sëriñ Tuuba li sëñ bi daj lépp ngir Tuuba ku ko woyofal xam ngeen kat du ko jig moytu merum Tuuba ak njub ak taalibe doon sun sun alal ji nu jig lay jig ku nekk feneen jigal nitu Tuuba kon yéen dafa mat bàyyi xel warmaal gi nekk na ba ci xew yi xew yi am ci Tuuba ñu di ca moytu yay am ci yeneen xew yi ay misig ak ay taasoog fecc ak waaye yu deme ne moom yëpp bàyyi ko ci warmaal dëkk bi loolu ci dafa bokk ci ñu war a warmaali dëkk bi am xew di teg ay misig mbaa taasu fecc ca kaway ak tëggi bongo ak i bool jékkiwul Tuuba li dee si xàmmee xewi Touba xasiida la woon ak ak alxuraan berde ak waxtaani sëñ Touba loolu mooy xew lan lañ xamoon xewi Touba alxuraan xasiida waxtaani sëñ Touba loolu na kon nañ ca nañ nañ nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax football bi gone yi def ci mbedd itam lu mu woyof lu mu niru niru lu woyof nañu xam ne woyofu ndax ci sëñ bi tere ci dëkk bi la bokk football ci Touba. fubla ci tobaaka takki jaaro nopp ci góor di niru bandi du màndargam nituk tuuba kuwaa ki paska ki pourtant après épi ak yu mel ne ci waxiin méngoowul ak tuuba ku nekk tuuba te bëggoo fan wu gudd diwee nay sàmmoor ma tey jox cër sëriñ tuuba jigéen ñi nañ fonk seenum col di sàngu yaram te bàyyi pant ki bopp yi neen ci biir tuuba ak yu na yu baree baree bari la kon ñu xam daal nañu sàmmanteeg euh, li sëñ bi bëgg ci dëkk bi mooy tax bu ñu bëggee ngërëmam bu ñu bëggee ngërëmam ëllëg ndaje ak moom ëllëg siggi faaw dañuy sàmmanteeg li taalibe gu laaj lépp te li taalibe laaj nag la ci jiitu mooy te mooy sax ak taalibe bi dëgg-dëgg mooy topp ndigal yi bàyyi tere lam digle la ca suñ kàttan ak lépp nan ko man nan ko def la kàttan àggu ni yéene ko lamteer nag ñu bàyyi lépp suñ ko defee rek mooy war mooy dëggal ne sunu kóllëre ak moom ak sunu taalibe ci moom dëggal nañ ko bu wér wér kon yooyu yëpp dafa mat a euh, bàyyi xel su ñëwee nag ci euh, xutba bi imaam war euh, def tey bu njëkk bi dafa tàmbale ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, mu ne gannaaw loolu nag gannaaw nag maa ngi leen xamal ne yàlla day am na ay xéewal yu màgg a màgg màgg màgg yum leen defal na ngeen màggal xéewalam yooyu yi ay mayam ci yéen day lu màgg la lu rëy kon na ko màggal te ko ay mayam yu lëw yu rëy yi nga xam ne moo ne fi yéen ak màng la kon nangeen ko njëkkante te màng ko man nañ ko sàkkatu wuti ko te jamono yi de am na ci am na ci jamono yi ngëneel yoo xam ne yuy wéy la kon na ko jokk ci jëf yu baax te di ko dundal waxtu nekk te ngeen falu nag ci jamono yi nga xam ne jamono yu ngëneel la mooy jamono yu ñu yu ñu jamono yoo xam ne sunu bon da koy màggal nga xam ne lu ca waay jëf suñu bon da koy ful jamono yi ngëneel yooyu nag na ngeen ci farlu lu ëpp la ngeen amoon ci farlu su ñëwee te ngeen fàggu nag ci ay ndàmbam yu gànjar yi mu làmboo lu leen di jariñ ca bis bi delluwaay bu ëllëg bis penc te xam ngeen nag ngëneeli seen weer wii di Shaaban mu nekk ci diggante ay weer nga xam ne ay ay yiw daf cee dolli ko waaye def ci sippi ay bakkaar waaye daf cee dañ dañ cee fulandi itam ay yool kon na ko teeroo na ngeen teeroo nag guddik guddik digg ba muy guddi fukki juróom ci Shaabaan kan dañ ko jagleel ngeneel lu màgg màgg màgg la jagleel ko yërmande yàlla eh, ju ju ju kawe ak yiw yu màgg yu rëy yoo xam ne làmboo na ko kon na ngeen na ngeen waajal guddi ko muy guddi fukkeel juróom ci Shaabaan nga xam ne guddi la gu barkeel nga xam ne yufraxu fi yufraxu fiha kullu kullu amrin hakim ja ba wax ci alxuraan moom la ci wax guddi la goo xam ne ci la ñuy teqali mbir ci la ñuy wàcce dogal yépp yéen bi alayhi salaam itam waxoon ne ida kaana laylatu nisfi min chaban fa quumu laylaha wa suumu bu guddi nisfi chaban dikkee muy guddi fukki juróom ci ci baraxlu na ngeen taxaw guddi ga mooy ko naafi la waa na ngeen wóor bëccëg ba ci beneen riwaaya man saama nisfa min sha'ban lam yamut yow yawma tamutul xulóob nee na képp ku woor digg sha'ban muy fukki fukkeel ak juróom ci sha'ban xolam du dee bis ba xol yay dee yàlla na ma yàlla defal defal leen ñu bokk ci ñi nga xam dañuy sellal ak jaamam tatab bi ci biir wax ci sunu ne li ne lilladina ahsanu xusna wa ziyaada ñi rafete seen diggante seen borom seen diggante seen morom yàlla dana leen fay aljanna ak leneen ndollan raw aljanna xutba ñaareel bi gannaaw bu mu sant yàlla jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne gannaaw loolu yéen ñi na ngeen wax seen ndànk tubéy ci seen weer wii dolli seenuk farlu ak seen yitte te yóbbuloo ci lu leen di jariñ ci bisub delluwaay ba ëllëg bis penc te ngeen màng seen bis yi dund balaa jeex ndax luy jeex la te ngeen màggal na Shaaban ni ko yàlla mi borom jaam ñi màggale dangeen nag gaarlu mooy ngeen ngeen ngeen ngeen génn gàttandu xéewal ak ngëneeli sunu borom yi nga xam ne ndax sunu borom am na ay ngëneeli ak yoo xam ne ci lenn ci ay jamonoom da koy làmboo da ngeen génn exposé yu nag ci ci kanamu nafaxaat yooyu dangeen ngeen laab nag seetal seen bopp ci bon boni mbo mboolem seen bon ba boni fàggu bon ba boni seen pàgguteef amaana kon ngeen texee ci yërmande yooyu suñu bon di wàcc ci bis yooyu te ngeen dundal nag jamono yiw yi ci jaamu yàlla maanaam jamono yi nga xam ne jamono yu barkeel la lu mel ni Shaaban lu mel ni rajab ak yi dem ne ak Ramadan muy ñëw nangeen ko na ko dundale ci ak jaamu yàlla te bu leen ca gàttañ lu nag ca bànneex yi nga xam ni yu ngeen baaxoo yu ngeen baaxoo euh, bànneexoo la rikk waaye euh, bu leen dund dund adduna gi war mukk fala taxurrannakum alxayaatu dunya dund àdduna bu leen wor ndax àdduna kat ay natt rek ko wër waaye itam jeex ga lu ñu xam la te bu jeexee ay xew la cay topp waaye lu ñu melal la ci ay wor itam moom àdduna dañ ko melal ci ay wor nee na ki am xel nag te muus mooy ki nga xam ne da koy te day teel a xam loolu teel a woon gannaaw àdduna dëdd ko waaye nag dogg nag jëm ci borom subhanahu wa taala tey làmbo jépp jikko joo xam ne dana ko jural cofeelu yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla boole boole leen ci ñi nga xam ne dañuy dégg tey topp te jéggal nu jéggal suñu waajur jéwél moo jul yëpp yàlla suma moom dimbale boole defal tawfiq xëy nu ci njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله الذي أوجب لبعض الأيام كرما وأصبح في الإسلام أوقاتا جعلها للمسلمين موسما نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأتقياء وأصحابه الرحماء الأقوياء أما بعد فيا عباد الله إن لله عليكم نعما فحرموها وإن عطاياه لديكم جليلة جسيمة فأجلوها وأكرموها وإن مواهبه الوافرة لديكم غنيمة فابتدروها واغتنموها وإن الأزمنة في الأيام متفاوتة فصلوها بالحسنات واعمروها واجتهدوا في الأزمنة الفاضلة فوق المعتاد واكتسبوا من ذخائرها النفيسة ما ينفع يوم المعاد وقد علمتم فضيلة شهركم هذا بين الشهور وأنه تتشعب فيه الخيرات وتحط الأوزار وتضع وتتضاعف الأجور وقد استقبلتكم ليلة نصفه المخصوصة بالفضل العظيم والرحمة الشاملة والخير الجليل الجسيم وهي ليلة مباركة وهي الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة النصف من شعبان وقوموا ليلها وصوموا يومها وفي رواية من صام النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جعلني الله وإياكم من المخلصين في العبادة الداخلين في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحمد لله الذي عظم بعد الليالي قدرا وأطلع لها في سماء الفضائل فخرا ونشر فيها أعلى من يعمي نشرا وندب لعبادته البلاد طرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله مصطفاه أرفع العالمين قدرا وأوضحها فخرا أما بعد فيا أيها الناس شمروا في شهركم هذا صاعد الجد والاجتهاد وتزودوا فيه ليوم المعاد معاد واغتنموا أيام العمر قبل النفاد وحرموا من شعبان ما حرمه رب العباد وتعرضوا rahimakum allah linafaxaati rabbikum fa inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafaxaat wa tataharu min qabixi kasbikum ase an tascadu bitulkum arraxamaat واعمروا مواسم الخير بالعبادة ولا تقصروها عن الشهوة المعتادة فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة فالكيس من لم يزل عن الدنيا مهرضا والى الله منقطعا ولكل خصلة توجب له محبة مولاه مسرعا جعلني الله وإياكم من السامعين الممتثلين وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين يغفر الله لنا ولكم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 waaw allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim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 qul inna al-mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum turadduuna ilaa aalimi al-ghaybi wash-shahaadati fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun yaa ayyuha alladiina aamanuu idaa nuudiya lis-salaati min yawmi l-jumu'ati fas'aw ilaa dhikri llaahi wa dharul baa'i'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun fa idaa qadaytis-salaata fantashiru fil ardi wabtaghuu min fadlillaah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 سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.